yow mi nga xam ne mënoo nekk si jàmm yow ak ki nga bëgganteel moo xam sa jëkkër la wala sa jabar moo xam ki ngay àndal la te yaa ngi sàkku sëy sa diggante ak moom maa lay déggal nga def lii di leen ñaan rek ginnaaw mu leen nuyoo ngeen di def secret yi anam bu rafet ndaxte joxuma leen fi dara pour ngeen koy caaxaanee joxuma leen fi dara itam pour nit ki jël ko rek pour di si fo loolu ku ko def du la kon na nekk farata bu fekkee da nga nekk sa jëkkër wala sa jabar nga gis ne diggante bi nu mu war a àndee wala ni ngeen war a dundee si mbëggeel si jàmm des na wala li nga bëgg am si nit ki dëgg dëgg dëgg des na mun ngaa def lii. ba pare itam euh, jamono ji nekk ni di dund da gis ay nit ñoo xam ne dañuy nekk si sëy wala ñuy waaj a sëy sax commencement bi day neex mais da ngay dem ba si digg ba ku nekk du bëgg a gis moromam wala kenn ki sax. am na nu muy demee du bëgg gis keneen ka loolu nag dëddalee dana koy faral di waral wala cat kon lii nii nekk na lu si gën ñaareel su ma defalee nit liggéey ba pare dama lay digal nga ut doomi poftan ginnaaw bu mu la liggéeyee ba pare ma la defee ko nangam nangam ndaxte am na si solo kon yow mi nga xam ne nag yaa nekk ak sa boroom kër wala sa jabar wala ki ngay bëgganteel te bëgg mbëggeel am seen diggante bépp dëddale dëddale bu nekk seen diggante mu a dañ bépp jafe bu nekk seen diggante mu mën a dañ defal lii maanaam da ngay xëy benn bisu ajjuma fekk si guddi gi ut nga maanaam ñaari doomi poftan yi boo ko utee da ngay jël ñaari doomi pomme de nga def ko sa rondol bo xëyee su suba sa inshallah allah da ngay jël parce que da ngay doom bu mag ak doom bu ndaw ben doom bi te tuddee ko sa tour benen bi nga tuddé ko turam su ko défé nak bo yéwo bala nga wax ak kenn da ngay taxaw sa tanki ngay jël taxaw ko si ñaari doomi pomme de nga sepp ko ci taxaw ci nga ñaan lepp lo bëgg sa digënté ak mo nga ñaan ko bul faté dara ñaanal lepp lo bëgg sa digënté ak nit ki so paré nak nga jël. nga taxaw tuuti bàyyi fa lu tolloog nga nga bàyyi fa sa sa jëmm daal fi nga taxaw lu tolloog ay cinq minutes soo paree na nga jël doomi poftoon yooyu nga xam ne dafay peer su paree nga jël ko sànni ko si poubelle bi wala nga sànni ko fenn jeex na loolu kese la ndaxte xam-xam dafa làqatu te ñu bëri ñu ngi sonn fu nekk ñu dem fu nekk ñu dugg fu nekk ñu génn seen xaalis ñu yàqu si sëriñ ci parfois ñu leen di nax wala yi ni mel kon nag bi def leen ko mbir mu am solo la incha allah ba suba asalaamaaleykum wa